def mooy waxtaanee attentat bi nga xamante ne am na au niveau des États-Unis ak Mamadou Ndiaye. comme ni nga ko waxee Bijou depuis dimanche euh, États-Unis ñu am benn attentat bu nga xamante ni euh, jaaxal na ñëpp d'ailleurs moom lañ jàpp ni mooy euh, fusillade la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis am na fa ci dimanche bi yu ñu xaymaa yi nga xamante ni ñoo ci ñàkk seen bakkan toll ci 79 euh, personnes yoo xam ne dañ ci ñàkk seen bakkan plus de 500 blessés bu ñu euh, bu ñu ñëwaatee ci ci nga xamante ni moo def attenta bi benn euh, mag la nit ku nga xamante ni ku liggéey ba retraité am 64 ans mi ngi tudd Stéphane Padouk moom mi nga xamante ni bu ñu xoolee ginnaawam tuuti musul am musul am kenn ak problème musul am ay relation aussi police mosuñu ko nekk koo xam dañ koy dafa am ay bis bi ak euh, police mais nekkul koo xamante aussi euh, kuy jëfandikoo arme la. surtout la demee attentat bi. attentat bi de personnes 59 personnes. près de 500 blessés te kenn ñëwul jàpp ko en fait si waaw mujj na mujj na rey boppam mu demee moo di euh, benn festival musique bu fa amoon fële ci Las Vegas. festival boo xam dafay regroupé ay nit yu bari ay musiciens en plein festival moom mu nekkoon ci hôtel mooy bi hôtel bi ma doon expliqué sànq mi nga xam ne ni jàpp ni xamante ni moo nekk hôtel bokk na ci hôtel yi gën a mag ci àddina mhm. plus de 3000 et quelques yoo xamante ni euh, chambre la moom mu nekk ci chambre d'hôtel am team euh, spectacle bi daal di jékki-jékki rek tiire ay tiire ay bal boo xoolee yi image yi ñu am yi nga xamante moom lañu doon partagé bari na ci ay euh, chaînes yi ko doon partagé da dégg sax euh, bal yi nga xam ne moom la doon tiré mais li ci gën a doy waar mooy euh, chambre d'hôtel am dañ fa fekk 18 à 20 armes yoo xamante ne ay armes yu sophistiquées la parce que ay armes. Ah, c'est ça le problème loolu loolu parce que instant dispositif sécuritaire je pense que dëkk yëpp ak ak wàllum terrorisme bi am actuellement. tout le temps fooy dugg dañ lay fouiller fouiller waat encore yooyu yëpp ba te police exeggul wala hôtel bi moo rëy. ba mënuñu woon xam ban chambre la nekk. hôtel loolu loolu nag c'est la question c'est la question que tout le monde se pose. Mm-hmm. Euh, hôtel lu mu rëy rëy ak monde. Euh, c'est ça ça a pris du temps en yi moom nga xamante ne moo am ci yenn hôtel yi surtout fii fii rek en Afrique boo gisee yenn hôtel boo koy dugg dispositif sécuritaire yi ñuy teg vraiment ni mu def ba nga ba dugal fa arme yooyu yëpp loolu la ñëpp di laajte mais tamit xam nga États-Unis am na nañu liberté am nañu droit euh, di yor arme mais benn. mais pas autant personne non. voilà pas autant 18 ba voire euh, ay 20 euh, armes yoo xamante ñu fekk ko ci chambre d'hôtel nekk na li nga xamante ne jaaxal na ñu bari mais li ci gën a doy waar tamit moo di waa Daesh dañu revendiquer attentat bi. mais <laughs> waa FBI ñoom dañu confirmer ni ba jusqu'à présent. Euh, ak du ñu accepté wala d' accord ñu ba nga xam ne kii. dafa bokkoon ci si Daesh euh, mais ñoom dañu wax que ni soldat wu Daesh la woon. voilà waa Daesh loolu lañu expliqué. parce que genre a quelques si dañu dañu dañu dañu dañu def revendiquer attentat bi expliqué ñoom ci seen ci seen ci seen soldat yi la bokk. donc utal nañ ko sax tur jox nañ non turam benn benn bi nga xam dañ ko fa teg daal nii la moo nekkoon euh, turu ki nga xamante ne mooy euh, Stéphane Badou moom mi nga xamante ne dañu jàpp ni moom moo def attentat attentat boobu mais li ci gën a doy waar mooy tamit mooy dafa def attentat ba pare balaa police ñëw di ko jàpp ak yooyu am 64 xale yi di fête seen fête ñu ñëw rey leen ba pare rey sa bopp aussi. moo tax balaa police di ñëw déjà ku yor arme c'est un peu pour nga jàpp ko. parce que yow yaa ngi gérer sa ak ñeneen ñi nga xamante ñoo nekk ci alentour boo dugg see ñëw ku jàpp ko brusquement mun na la rey yow tamit donc c'est sûr que dina jël tuuti temps bala ñuy mën a accès si moom ba koy jéem yi tam rey nañ si quelques personnes je pense si. am na ci am qu'il ait eu le temps de jël munition am yi mu woon yëpp. Ah, tirer plus de xawma ñaata bal. ba munition bal dafa gaaw tu sais quand une fois sur la gâchette. une seconde ça peut sortir de cinquante coups. donc tas de fusil automatique euh, la automatique yoroon donc benn seconde rek c'est vingt plus de trentaine de balles. donc euh, déjà il a eu tout le temps beneen bi moom mooy euh, hôtel bi mu nekk déjà un coup. dafa am lu ñuy wax écho chambre d'écho boo xam te une fois que le coup est parti tu ne sais pas d'où est-ce que ça vient. tu peux approximativement maintenant tu m'as dit donc va trouver une euh, une aiguille dans une euh, voilà dans un bon foin voilà donc c'est très compliqué mais euh, il y est parvenu parti et il a gardé le mystère. Mhm. c'est ce qui est dommage voilà. amul problème ak kenn police xamu ko et tout et tout et tout. il est riche. voilà donc bul xam ban problème la am moom personne. waaw loolu yooyu la rek. est-ce que du ko sonal. mu ne ñii waa festival bi xaaral ma ñëw fekk leen. mais xam ñoo xam ne ay psychopathe lañu Alfi. dañuy arme yu bëri yooyu li li la ñu kii la. tu penses qu'il avait pré préparé ah prémédité di dugal arme yi benn par benn parce que loolu kenn mënu ko dugal. loolu donc waaw ci ci enquête bi yooyu la ñuy nekk di xam na préparé. actam bi est-ce que daf ko waajal bu baax est-ce que moo tax ñuy retracer waat toujours euh, à chaque fois c'est important toujours ñuy retracer. <laughs> li ci gën a ci gën a bu ñuy xoolee bu ñuy xoolee bu ñuy xoolee toujours ci jaar-jaaram famille parce que démb ñii ñu joxe information yi ñuy joxe yëpp ci moom témoignage bi frère am moo ko def. bu ñuy expliquer parce que ñu ngi wax ni papam braqueur de banque la woon mais moom amul lien ak papam euh, nekkul koo xamante ni ci année nekkoon papam nekkoon na ci année 60 yi koo xamante ni FBI da mais moom amul woon trop trop trop trop lien ak papaam nekk na koo xamante ni da doon liggéey et puis amoon na xaalis boppam moom ñoo ne richisme na millionnaire la nekk na koo xamante ni koo musul am problème ak police nekk na koo xamante ni aussi dañ ko xàmmee ci yenn boîte yi ak fête di di ay problème peut mu nekk problème personnel. Euh, mais boo amee problème personnel nga ut la dimbali tam. ñàkk wax boobu nag bu la demee. rey na boppam c'est vrai c'est sûr que di nga def soit ay dégâts rey na soit à toi-même soit aux autres. te bu ñu bu ñu fàttalikoo ci atum 2016 novembre 2016 2015 pardon bu amoon na ko ca Bataclan. en France yu mel nii bon benn concert mu mel même situation mais bien vrai que bokkul ak. bi euh, moo ëpp nit dans l'histoire dans l'histoire euh, aux États-Unis mosul am benn c'est lui en c'est dommage actuellement monde bi doo xam lan moo fi xew tout le temps boo yeewoo information yi ngay dégg daf lay choqué soo yeewoo ñu waxaat la beneen j'espère que jàmm dina ñëw ci ci ci àdduna bi comme démb lañ doon célébrer journée de la paix nit ci bàyyi rayante beeg yu kenn xamul parce que vraiment c'est dur à chaque fois que nga yeewu. fekkee benn affaire boo xamante ne danga naan lii warul mun a am nga yeewu gisaat beneen bu gën a doy waar il faut qu'on arrête e que ñëpp kalmandoo daal ñu nekk ci jàmm donc euh, c'est c'est très dommage massa waa États-Unis ak waa àdduna bi yëpp nga xamante ne genre yu mel nii daf leen di dal ak yeneen yu gën a metti c'est très très dur pour le monde entier j'espère que dinañ changer ba jógee ci air boo xamante ne nit yi du ñu sentir ragal bi nga xamante ne tout le temps moom ngay sentir booy génn ak fooy mun ci dem dina am peur boo xam ne moom ngay yóbbaale et c'est très bien. histoire triste nga ciy dégg parce que booy retrace booy retrace ak fay couple yi nga xam ne récemment la ñu kenn ki doon sauvé surtout couple bi doon jëkkër bi di sauvé jabar ji finalement moom moo moom moom moo ñàkk bakkanam ñeneen ñi nga xamante ni yàggul dara la ñuy marié yaa juste une semaine ñu demoon di feetu ci li nga xamante ne mooy conseil bi tamit ci la ñuy jóge kenn kii wala ki ñoom ñaar ñëpp ñàkk fa seen bakkan c'est dommage en de sécurité y a pas de amul amul amul fu mu yem mm-hmm. te am na fu dëkk yi di toll les grandes puissances là dañuy foog ne euh, dara mun dara mun leen dal ils gèrent tout parce que technologie bi ñu am ak yooyu mais <laughs> écoute am na ci nit mooy nit mooy defar yooyu yëpp donc ku ci nekk rek euh, technologie bi loo ko teg teg. dispositif sécurité mais y a toujours système yëpp dafa am faille. waaw te nit a koy defar en fait. ki ko defar sax jaay système bi mën na moom ci boppam euh, exploité ko à d'autres fins donc on ne sait jamais. on ne sait jamais en tout c'est dommage. port d'arme. man daal ah. j'espère que air bi dinañ ci jóge air bu jaxasoo bii nii ñu nekk nii j'espère que dinañ ci jógee jàll jàll jàll feneen par Samba bul ma wax dans cinquante ans lañ fiy jógee nous on garde l'espoir que d'ici <laughs> deux mille dix-huit boog ñëpp dinañ àndandoo seen xel dellu si yii yëpp bañ a ci njaay ñu parle